ngeen di saasone xoolal sa bàyyi Ibra Fall ñoom far ko yàlla la te man wax naa leen fii ne leen Cheikh Ibra daaw jéeg wax naa ko fii ci Parma Parma laa ko waxe dama koy waxaat tey jii ma ne leen Cheikh Ibra day man maa ko laaj man Moustapha mii mu gën a xeebu ci njabootam gën cee ndaw maa ko ne man day Fall nit jëmm laa joo xam ne ku bëgg julli laa lool waaye nag man maa ngi sukkandiku fa nga taxaw tegoon sa tànk ndax da nga ne woon Serigne Touba bëgg àjjana mbaa ragal sa war a boole wu ma ak sa jëmm ji sa jëmm ji rek ko ma yor waaye day bëggoon na ma nga leeral ma ba ëllëgee ñi nga xam ne si dañuy sikki sàkk sa jëmm ji ñi la nga xam ne julli wóoruñu ñu di leen sikki sàkk naan ñii de danañ dem àjjana ak duñ dem àjjana nga leeral ba xam ba ëllëgee fu ñuy mujj seerafal wan ma àjjana eh! ne ma lii lan la ma ne ko ah lii de caabi la من بند في بالله من ما يرجع بجد وهم في غفلة لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واجي نينا يو دوم ماندو شيخ إبرافال نينا ماندو موغن كور ماندو وو جخي جن جولي تخمو لن جخي وخجي دو وخجي ور وخجي القرآن دكو دقاجه da koo weddi sunna da koo weddi euh, maandu gënul koor koor ponk la ci ponk lislaam koor ku ko bàyyi yéefar nga te maandu ku ko bàyyi doo yéefar bu fekkee nag li ngeen namm ci maandu mooy noppi ci diine lislaam ñay daganal ci lislaam naka sudul noonu comme ñay daganal ñàkk julli ngeen ne nañu noppi ci ñoom loolu mooy maandu loolu du maandu loolu nëbb dëgg la loolu mooy ñàkk maandu nëbb dëgg mooy ñàkk maandu comme ku taxaw ne ñàkk a julli ak ñàkk woor dagan na ci diine lislaam kooku da koy tontu loolu moom mooy maanu noppi ci mooy ñàkk mooy ñàkk maanu parce que yéen a wax ba dugal islaam julli la julli ñëpp ko bokk soo waxee ci julli nag daganal ci wala indi ci àtte boo xam ne du noonu maanu tamit mooy ñu wax la du noonu comme maanu gënul koor ndax koor farata la koor ko bàyyi yéefar te bu dee maanu bi ngeen wax mooy maanu ci ay nit maanu du farata maanu du euh, du li nga xamante ni moom mooy ponk l'islam comme maanu boobu ngeen wax du maanu bu islam reconnaître boobu seen maanu bi ngeen di wax la yéen mu ne joxe gën julli loolu tamit du dëgg loolu amul julli ponk l'islam la ku bàyyi yëfar la julli ponk l'islam la ku ko bàyyi yëfar la loolu waxoon naa ci del leen ci preuve yi euh, leer na joxe du farata ñaari joxe moo am joxe boo xam ne farata mooy azaka mooy boo dencee alal ba mu mat at nga génnee ci azaka bu fekkente ni mën na génne azaka quant à joxe boo xam ne joxe di la rek joxe sëriñ bi joxe lekk joxe naan loolu du farata loolu nekkul farata loolu na la loolu ku mu neex def ko ku mu neex bañ ko def ku ko deful tamit kenn du dafa am bàkkaar waaye julli ku ko bàyyi yëfër nga da ngay génn ci diine lislaam léeg-léeg ñu yokk ci beneen ñu ne ñu ne lan moo gën xam-xam am na ñu ñuy wax ne moom moo gën xam-xam ñu ne liggéey gën xam loolu tamit du dëgg ndax xam-xam bu amul woon liggéey du am xam-xam moo créé liggéey xam moo créé liggéey moo tax yàlla saar bu bu njëkk a wàccee iqra la xamal jàngal comme moo lay won ni xam moo gën liggéey même xaj xam islaam att yu mu indi ci xaj ne bu ñu jege xaj bu ñu ko def suñu kër waaye nee na xaj boo xam ne sax xam na am na xam-xamu garde ak rëbb utiliser ko comme gis nga yàlla dafa gën a xaj bu xam ci xaj bu xamul waxuma laa nag nit bu xamul dara comme yooyu ay wax la ay waxu kasaw kasaw la yoo xam ne euh, taxawul fenn quoi